waroon naa ñëw yàlla ne la eh, teg ko fële ti teg ma ci sa xol maa fi ne lu ma nangul du dem xul lan yusibana illa ma kataba lahu lana yàlla nee na lu ma neex mu dal la lu ma neexul du la dal morso mënu ci dara sa sëriñ morso la yaakaar eh waay mu morso sëriñam dee ko tuddee sëriñ morso marabu morso laa wax iran ndaw sëriñ morso iran ndaw sëriñ morso voilà man nag duma ko takk parce que damay fat na leer te itam nag di daw ba di daw dee fat dem ci dee du ko def am de damaa fat du ma ko def gis ngeen sama furux furux ji moom sax la nit ñi waroon a gën a dawut ay masque moo tane parce que gis nañ may fuux fuuxi rek ah caaxaan la kon sunu woreeg jàmm nag waay waaye waay waay gars yi ndooy liñ defoon ci koor gi yëpp bàyyi woon nañ famille de déggoon naa sax ko fi wax ne way kuy football man ngaa lele waxoo dëgg football kenn du ci lele li nga bëgg nga ne ca bàyyi la yàlla bëgg wax ma wax ma rek nocturne amul xaw ma nag lu muy firi defe naa muy footballum guddi waaw loolu amul lu tax bu weeru koor jotee ñu jox jullit yi seen àq jël football bi def ko guddi jël làmb ji def ko guddi waxuma ne dagan na de waxuma ko dama ne lu tax mënuñu jox àq jullit yi bëgg a woor ñu jiite CNC la xaw ma ñu jël football bi ak ñu jiite làmb ji ñu def ko guddi ku ndogu dem bëri ku ndogu dem football loo am jëlal yàlla ëpp na ko waxuma jaar na ko xaarkati matt yi lu leen ko tee xar guddi buñ ndogoo pare ñii mool lu leen tee mooli guddi courant baa ngi fi projecteur yaa ngi fi looy laay parce que yàlla saful xam nga lu tax yàlla saful leen parce que defuñ ko ci seen xol sëriñ boo seeti boppam la lay lay gën a yokk ci yow noo ko gën a gëmee wala ne sama dooma fi ne su ma dee mooy toog man sama baay bu dee kuy toog wax ma ko yow boo dee sa doomay toog loolu nga may gëmloo man su ma dee su baay bu dee kuy toog yow sa doom di sa xalifa man may sama xalifa baay doxal fële loolu du dëgg du dëgg waaye nag lu waaye nangu teg ko ko ayut sëñ Cheikh a ko waxoon nee na mag lu mu nangu teg ko ko dara nekku ca corona crampe taaha bi xaddamayka yaa rasulallah dëggal sa ñaari tànk yow yonent bi maa la yónni de dëggal sa tànk yi laa wax nabi ne ko naaj yëg ko ci xol bi muy sama tànk bi woon ci gàmmu gi laa ilaha illallah du ma lekk du ma nelaw jeex tàkk sonn damaa gàmmandooy woo nga ma sax ci biir gàmmu gi ne ma lu tax nga sedd sedd guy mënuma def toog rek nii bi ma ñëwee ba ñu gàmmoo ba ci ëllëg sa gannaaw ëllëg sa la saaliw ne ma tàbbi ba bënn na mu ngi sotti moo sama docteur bi boo sama docteur bu jigéen ñëwee muy joor faj ma dem dafay bàyyi garab yi dama neen koy defal ci bët ci la am jàmm ay ferme lay sol léegi bëggoon naa cee kajjindoo yi ci fajar daa waaw mais c'est gis nga sunu borom bu dara dox sa digganteeg moom fi mu ñi ci bàmmeel yëpp ku ñu yaakaar yaakaar sëriñ amatul de ci ñi bàmmeel jeex na suy sukkuraat looy wax laa ilaha illa kii ñëw sawet lu mu lay waxal laa ilaha illa laa lu waxal iran ndaw iran ndaw iran wax waxal laa illa allah muhammadun rasulullah yàlla rek mooy yàlla muhammad ay yónnentam booy sukkuraat loolu ngay wax ñun gëmunu kenn yéen ñi nekkoon ci caaxaan yi avant koor tëjoon ngeen ko nag am na ñoo xam ne njaaloo lañ ko tëjee nañ waxante dëgg rek nag mu leer na leer lu lëndam amu fi ndax ku sañ a jëf-jëf ñu sañ laa tuddal jëf ji koor gaa ngi ñëw ñu ne dañuy tëj saison bi maanaam dañuy tëj fomm ñu nekkoon ak caaxaan yi ba woor ba pare tëjee ko lu bon nuñ ko tëjoon njaalo nuñ ko tëjoon fóonante nuñ ko tëjoon def yaramu neen luñ ko tëjoon bokk lal luñ tëjoon mel ni ay kuti yu ndaw ak i golo yu ndaw suñu paree ñu ne saye léegi bu ñu waree ñu tijji saison bi ku ne gel ba nga amoon ak ku ne farwa nga amoon ngeen dellu ca mooy yàlla ga ngeen nekkoon te yàlla wax ne bi ma leen di bind wàcce leen ci suuf de pour ngeen jaamu ma moo tax waaye koo gis bakkanam la topp xoolal Assane Diop oto yi ci dëkk bi parking oto yii am na ñu denc oto ba mu yàqu kër yi ñu tabax ba mu yàqu du xel de bëgg-bëgg la bëgg-bëgg la dama waxoon sëriñ bi fekk ñu rangaleel ko lekk yu dul jeex ma ne ko sëñ bi lii lan la mu ne ma xam nga boo wooree sa xel day nekk ci lu ma ne ko non sa bëgg-bëggay nekk ci lu mu ne dënd ba mu moom moo wax nga dëgg di ne ko xel du ca parce que bu doon xel dalay wan ne jëndal lii rek doy na nga lekk ko sakkanal li ci des mais bëgg-bëgg sa sa estomac muy fuddutu jëndal mango jëndal xaal jëndal mandarin jëndal pom jëndal jëndal jëndal jëndal ngay jënd rek loo bëgg jënd mais oto yi ngay ràngale pour lan kër yi ngay rangale pour yan alhaakumu takaasur pour lan compte bancaire yi yi sotte alal judul jeex su ngoonee nga yóbbu banque cent millions deux cent millions trois cent millions bis nee nga maa ngi dix millions kii ne vingt millions kii ne cent millions kii ne milliards kii ne ñaari milliards kii ne ñetti milliards kii ne dix milliards alhaakumu takaasur nga ne ca rek di dajale xataa zurtumul maxaabira ba xëy dee na jalañ ne la laa doon jël si ne ko yàlla non non yow itam xanaa gisoo alal ji mu ne hey du yaa liggéey mu ne waaw du maa la bind mu ne waaw mu ne ko kañ dem xaalis bi nag mu ne ko ba kook say doom ñoo ko doon liggéey yow liggéey ko sa bopp di solo ci yére di lekkoo ci naanoo ci dimbalewoo kenn sa bopp liggéeyoo ko sa bopp ñii nga fi bàyyi ñoo koy séddoo acca ndem la yastaxiruuna saa wala yastaqdimuuna du ma ci dolli seconde du ma ci dolli minute matal nga dangay dem alal ji sama yónne ko mu ne yàlla bàyyi ma maye ko mu ne ko eh boo ko doon mayee ba ngay dund nga maye ko maye ko woon alladi jamaa maalan wa addadahu nga doon def yaxsabu anna maalahu axladahu da danga doon compter di yóbbu ci bank bi ñu naan la patron ñi naan la boss ñii naan la laa ñii di tagg say maam ngay dof dof ci kaw nit ñi tey dee ñëw na jox la image yi alal ji ne compte yi nga am yëpp ngay xool yàlla lu may moo tax booy di di ngay féqatu di féqatu parce que bëggoo dem soo paree ña nga doon liggéeyal alal ji muy sa jabari ak sa doom yi ak sa ndey ak sa baay ñu séddoo ko mosuñ cee mos na naka mu séddoo doon ngeen def lu baax li leen yàlla sant mooy ngeen woor woor ngeen lu baax nag woor ak lu dul woor la war nit ki continuité la nañ saxaat ci mbaax sax ci ndigal ba koor ñëwaat ñu woor kenn waxu la ne koor ngay def dañ laa woorloo rek woor rek la tudd xiifal maral moytul ba weer wi jeex weer wi jeex na lekkal naanal nekkal ci lu baax c'est ça continue ci yiw continue te la waaye doon foo ñee ca pecc ma ñee ngi ca tëgg ma ñee ca musique ba ñee ca làmb ja ñee ca euh, caaxaan ya waaw eh, tëj tëj ndaw si ngeen tëj saison ñu wari ngeen di baal lan mooy baal gis nga mënu leen fexe fexe fexe ba li ngeen def dagan ustaas yi leen ko ragal a wax rek waaye dara daganu ci nangu leen ko su leen neexee ngeen saaga ñu ndey ku ñu saaga ndey saaga waat nga sa ndey lu nu waaye wax waxaan nga ko sa bopp wala nga wax ko sa ndey musique yi ñuy def fecc lu jigéen ñi daganul daganul ay góor ki jigéen daje ci benn place kenn lewul sa morom ñuy tegante yaram fuñ ko teg fan lañ ko teg ñu pare musique bi yeggagul nga ànd ak ndaw si dem sa kër lee ko sa kër ngeen fanaana njaalo ku ko sabab ki tëgg musique bee ko sabab ñi ko woo tëggloo ko ñoo ko sabab ñoom ñépp am na ñu bàkkaar ku ca def bàkkaar ku ne am nga ca seen bàkkaar ku ne benn bàkkaar ñi paas yi uutee noonu la bàkkaar yi mel ku ne da ko am ci moom bàyyi leen caaxaan te ngeen dem ci dëgg moo gën ku ci dee doo bëgg ñu tegal la musique alxuraan ngay bëgg ñu dem réciti di kat allah voilà loolu la ñu ngi gërëm suñu sponsors yi yi ñu amoon ci koor gi waaye caaxaan baaxul xam nga ñun itam euh, nañ ko wax rek olof nag danaan nañ ko wax te olof du ko wax <clears throat> mais jaaduwul jaaduwul lépp luy xeetu fo yàlla àndu ci yàlla nee na binduma leen ngir foo dama leen bind ngir ngeen jaamu yow ngay tëgg musique ñaata junniy doom aadama fay daj ci yépp yaa fi indi association bi la fi indi wala ministère bi la fi indi pour uutee la xaalis nga tëgg jigéen ña fa daje di di góor ñi xaraam na ma wax la ndooy lu xaraam wala yadribna bi arjulihinna li yulama maa yuxfiina min zinatihinna man maa ngi waajoo xam ne xaalis boo may duma ko lekk laaj ko saaliw dama koy maye duma ko lekk man duma lekk lu ma leerul duma ko lekk laaj ko saaliyu mi wallahi wal quraanil hakim pour lan yàlla nee na xasan jigéen ju takk fer di dox fer ya yëngatu góor gu ko déggati du jëkkëram ndaw sa am na bàkkaar quraan a man nag diine lay waxtaane bu leen ku saaga dootoo ma saaga ci àdduna mukk doxal ñu dem te du ma man man man buur laa <laughs> wax naa la ko ba tey man du ma déglu sit du ma déglu kenn du ma déglu dara dara dara xam nga foo ma jëlee loolu laaj ma ko lu tax du ma déglu Serigne Cheikh muy sama professeur nangu ko ndax am nga koo gëm nee na dafa am benn nit bu guddoon fan torop te amul benn problème dinañu laaj ko ni ko lu tax nga gudd fan te amuloo stress mu ne ñàkk déglu ndax kuy déglu doo jog ci stress te stress bu bari day jàpp sa xol te bu jàppee sa xol bu yàggee nga dee man du ma déglu ci laa ko jële xaale yi ma ak uy ku ma ci kenn ñi mu ma cee dégtal te boo ma yónnee vocal ma supprimer la yow sa bopp man noonu laa mel xanaa ma xam ne bu dee asset boo ma ne nanga ma ci ne nag ma xam ne sénégalais man nga ma ne nangam pour ma déglu ko déglu ma neexul dama lay supprimer laa wax man bëgguma déglu dara dara lii leen wax mooy dëgg tëgg laa wax musique musique na wax ji leer ña fa daje ñépp ka la fa indi lam fayeeku la ko nit ñi jox xaram na daganul ci ki ko def ne leen métti yéen a xam sama yoon man diine rek lay waxal soo demee ca làmb ja it xam nga lu fa ne loolu liggéey la ñoom dañuy liggéey bëre ko daanu du teeñu fay la ko daan du tee fay la waaye xam nga lu fa lu fa lu fa garaaw seen awra yi ci biti wa awratu rajul maa bayna sura war kubatin awray góor mu nga dalee ca jumbu xam ba ca óomam loolu génn muy yaramu neen mi looloo daganul sariya laa leen di wax gëm leen ne sariya laay wax loolu daganul wóor ba koor gi jeex nga tijjee ko mooy yàlla tijjee ko am fo tijjee ko tëgg musique ñu defee ne dagan na daganul dañ leen koy teel a wax ngeen xam ko su ngeen ko bàyyee yéen a xam su ngeen ko bàyyiwul yéen a xam soo léegi yàlla ne leen Iran waxoon na leen ko da ngeen ko faalewuloon dégg naa sax li ngeen ko wax dégg naa li ngeen ko wax fa darni wa man yukazzibu bi haadha al-hadiis léegi nag da ngeen ko weddi woon bale léegi nañ ma bàyyi yéen du da ngeen koy wéy doon lànk ne du ngeen jëf li wax danaa leen duma ba ngeen xam ne xaalis jaru ko foo jaru ko caaxaan jaru ko réew mi nag li fi nekk ko wax danga nga saxi sell de réew mi li fi nekk ko wax da nga sell ñiy jaay yàmbaana nañ ci wax kalandoo yi nag ubbi sa kër ñu fay njaalo nga jël ay nit yor leen suñ njaaloo nga di leen fay ci li ngay fayee cigarette nag daganul wax nañ ne at mu ne nangami junni lay rey waxuma ko de ñoom ñi ko liggéey ñoo ko ci bind nee nañ danger la pour wér-gi-yaramu nit waaw luy danger ci wér-gi-yaram nga dégg yéen jëlu leen sax man ma defoon sax da ngeen da ngeen jël suñu feebar yi tuddee ko cigarette muy masque cigarette am de parce que cigarette luy rey ay junni par an ñun at mi ñu toog ci corona ñaat rey rey nañ lu mat junni corona reyu fi mille ah astafurlaa yëguma ko ah cigarette di rey ay junni ci par at wutal luñ ko pexe saxaar si rek bu la duggee ngay bëgg a dee bitig boo dem mu ngi cigarette sàngara si dem naa sama soxna feebar ma doon ko seeti am lu mu doon def ma dem di ko jëndal ay bagage laaj ko Saliou sàngara si lañu rangale ma ne ko yow lii lan la mu ne ma sàngara en tant jullit góor ñi ñuy fay di leen tëddee ak góor gi leen di tëddee en tant que jullit ak jigéen ñi bëgg a séyante en tant que jullit yi jigéen mënta séye moroom sabar yi nag tànn biir yi nag jigéen ñi ngeen yóbbu ci hôtel yi nag jabaru jàmbur yi ngay yónnee oto nag di leen yóbbu sa kër soo paree jox leen oto delloo leen ti nga am jabar foo ko teg sa jabar fan la ko teg